bismillahi ma di way rasulo xayri xalqilaa yonent bi alayhi salaatu wa salaam ku ci mel ni chérif bu xalifa Kunta ku ci mel ni chérif Bakar Aydara ku ci mel ni chérif Abdou Khadr Aydara waaye ñoo ngi xaar ñi yàlla jagleel fii ñu nekk mooy les autorités administratives non non. ndax diine ak jamono la. loolu tax ku si mel ni madame le ministre Assome Aminata Diatta dañ koy xaar ku si mel ni ci li ñu ci war a def ba dese laa ci kon kooku bu dee si koo fàtte ñu ngi ñaan njabootam wala représentant bu ñëw. kii nga xam ne tey mooy bëgg a jàng xatmu bi tey wuutu na fi ñaari bokkam akub jigéenam mooy Seyda Aïcha Aïdara mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla mu may ko wér ba mu mën a dellu si waat ci sunuy jotaay ak ñaari càmmiñam muy Chérif Abdoul Khad Aïdara ak Chérif Boubacar Aïdara moom mii leen fi wuutu nag dafa fekk ne jotaay bi day bëgg a yàgg te waxtu waa ngi dem te waxtu goor la moom mii nag tey bu diiwaan xamee kan mooy cheikh bu njànqa moom mii moo tax moom cheikh bu xalifa kunta ci jamonoy 2014 boobu diiwaan di woote moom la alaaji maam bu Mamadou kunta mi nekkoon xalif général de xaadir ca booba jamono moom mu nekk porte parole am moom la yebaloon ci diiwaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu amoon it beneen mission boo xam ne mi ngi ko tënkoon ci dëkk bu ñuy wax Ndànkanaar ca biir Kajoor muy dëkk bi nga xam ne fa la yi ci senegal yëpp fa lañ cosaanoo yàlla dogal am kilifa gu mag goo xam ne moom lañ fa doon ñaanal te kilifa googu woy jur la ci xalif général bi booba tax mu nekk fa ci la ma woowee nag ne ma dama bëgg nga ñëw dem ci jotaay bi teewal fa xalifa bi loolu mooy li may indi diiwaanu Seydina Muhammad sallallahu ba ñu xam ma fi moo waral it waa diiwaan yi téye ma moo tax tey yii bi mu amee ma ne ah, sëriñ bi waa diiwaan day xam nañu ma dégg nañ sa tur waaye xamuñu la bu ma sañoon nag tey daañu la xam bu ma sañoon tey surafaaw yi fi nekk di say bokk ngeen bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daañu la xam lii moo waral tay teewaayam bi waaye ku ñàkk jot la ndax yàlla dogal na conseil spécial bu xalif général de xaadir la la ca tegu it moom la doxale digganteem ak xalif généraux yi ci Sénégal yépp fu ci fu ci waay xewle moom mi la sëriñ bi yebal moo fay dem yàlla dogal na it association bi nga xam ne ñooy seentu weer yi nga xam ne ci ñoom la ñuy déglu ci weeru koor week weeru kori wi yàlla dogal na moom mi ca la bokk te porte-parole la waxkat wa wax rek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 moom lañ doon nekk nekkati mu sànq ba léegi ngir bëggoon bala ñuy def dara ñu nuyoole ko ñaari bokkam yi fi teew muy cheikh bu xalifa Kunta bi ma leen wax ne bu ma xamee diwaan diwaan xam ma tey ginnaaw yàlla moom moo tax waaye kii ci sama wetu ndey joor di cheikh al Bekaay Kunta moom itamit di sëtu cheikh Sidi Mokhtar Kunta yi moo xam ne Cheikh Amadou Bamba ci Masaalikul Jinaan moom lay faral di tudd ak doomam jooju di Cheikh Mamadou Khalifa kon ñooñu dañoo ñëw fekk si tey seen i bokk seen bokk yi di Seyda Aïcha Aïdara ak Chérif Abdoul Khadir Aïdara ak Chérif Aboubacar yàlla dogal na it ñu am gan koo xam ni dañuy wax gan ci jotaay bi waaye gan la moo war a dalal gan yi mooy El Hadj Babacar Gueye mi nga xam ne mooy président conseil départemental bu département bu Kër Massar tey ci jotaay bii fi ñu toll di tembe moom lañu fi xoolee son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall ndax tey toogaayam bii mu fi toog mooy kilifa département bi yépp waaye bala ñu koy jox muy yëkkati kàddu ndax xat-xatu jamono ndax lu mel nii ni ngi koy xaar ci feneen ak feneen ak feneen ku ci nekk mu bëgg faa teg tànkam ngir bëgg kenn ku nekk mu sagal waaye dañuy jàng xatmu bi ci ndigalu euh, responsable moral muy Chérif Abdoul Khadr Aïdara euh, Chérif laata ngay ñëw yëkkati woon ko joxoon ko sëriñ bu xalifa Kunta ngir mu ubi xatmu bi jàngal ñu ko wuutale ci yàlla dogal na nga ah lépp nag mi ngi sa loxo dañ la koy delloowaat rek ndax sa cër kon nag ah sering bu xalifa nee na bokk kenn ku nekk nga jàng fatiha wu ñett ahad nga teg ci ñetti qul huwa allahu ahad salaatu ala nabi ak salaatu ala nabi ñu def ko addi yonent bi alayhi salaam ne ñu boole lépp nag def ko addi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way dawlu yooyu ngeen limoon sànq way dawlu yi ñuy limoon sànq ñu bokkoon ak ñun jotaay yu diiwaan li jiituñu ak mboole seen way dawlu jullit yëpp ak mboolem way dawlu jullit yëpp yàlla yërëm leen yàlla yërëm leen jéggal leen jéggal jotaay bii ñu toogit nee jotaay bii ñu toogit yàlla sotti ci barke alxuraan nee yàlla sotti ci barke alxuraan ba lépp lu ngeen ci nar lu ngeen ci namm ba lépp loo xam ne namm nañ ko ci yàlla def ci lu kawe seen jot nee yàlla suñu borom defal ñu ci lu kawe suñu jot amin ñu yàgg koo daje nee te it ñu yàgg koo daje yàlla nangul ñu yàlla nangul ñu ko bismillah kon bismillah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 اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوته عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوب عنا ما كان في تلاوته بسبب أو نسيان أو تحريف أو تقليل أو تاخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو زاد لسان آمين آمين يا رب العالمين أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مضغم أو إظهار بغير بيان واطلبهم منا على التمام والكمال والمهذب من كل الآلام وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه من الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا لنا بشر والضلال والطغيان ونبينا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر وسؤال منك لدونك يوم للديدان وبيض وجوهنا وثقل ميزاننا من حسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا برحمتنا وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن بلادنا وثقة بك ذكرنا وعتقادنا وأمن من الجوع والفقر بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل ما قرأناه أمر ما تظنه من سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام آمين سيئاتهم اللهم نقهم من الخطايا واغفر حجتهم اللهم ولي قبورهم وأرحتهم اللهم إن كانوا محسنين أحسانهم وإن كانوا مسيئين فبك عن سيئاتهم اللهم لا تحملنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أسود الدار ورد الله القالد عن جميع المؤمنين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو ني في تيو نيب دي جيتال سي نيو بي كليفه كو di Cheikh Abdul Aydara di responsable moral bu diiwaan di ci tek Cheikh Khalifa Kunta di également Cheikh Bekai Kunta di nga xam mo ngi Cheikh président du à travers lui ñu nuyu tous les responsables du diwaan ak képp ku fi teew nekk membre wala sympathisant ci Diwan. di nuyu invités yi ak parrain yeeg yëpp di bég ci invitation bi ngeen ñu défal ak euh, honneur bi ngeen ñu défal fi ci programme bi su ko défé xamna naa kàddu du gudd ndax li ëpp solo conférencier bi mo koy wax ak kilifa yu baax yi euh, suñuy kàddu kàddu cant la rek euh, nuyu leen sant leen ci li ngeen ñu defal ndax yiw bu ko nit amee woo la ci mënoo ko fay dañu nekk ci weeru barke weeru leer weeru yiw ngeen di organiser yiw bu toll nii invité ñu ci jox ñu ci cër loolu dafa rëy ci ñun loolu moo tax ñu sant leen bu baax a baax

yàgg ko organiser yàlla di ci yàgg def ndam lépp li ngeen am ci objectif diiwaan bi yàlla yàlla def ngeen àgg fu ko ëpp su ko defee ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey dafa nekk bés bu xat eh, maa ngi nii am na ñaari programme yu ma bàyyi mais am na benn boo xam ne mënu moo fa bañ a dem fële ca Malika plage su ma fa jógee damay continuer yëmbal surtout am na fa réunion boo xam ne man mi maa ko war a présider. boobu léegi téléphone baa ngi baa ngi sonné euh, ku ñëpp bokk nag loo ci am rek. sante ko bu ñu sañoon toog fi ba mu tas. ndax diwaan ñoom dañ maa tippoo. waa diiwaan dañ maa tippoo te lii Baye Fall wax suñu yéene ëpp na lool. suñu yéene lool. xanaa di ñaan rek yàlla jàppandil yombal mbir yi ba ñu mën a mottali suñu yéene. waaye li ñu yéene diwaan bi ëpp na loolu su ko defee yàlla mooy suñu seede nit nag mébét la am ak yéeneen mais buñ ciy bàyyi xel bu baax a baax mais ngeen may ma rek ma nuyu conseiller départemental yi fi nekk di sona xarjata gise bu ma fi fekkee tamit te maag moom ñu bokk conseil départemental bi dafay rafet ma tudd ko nuyu ko su ko defee daal loolu mooy kàddu yi ñu ngi sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh c'est pas dans la matière des valeurs il remet en cause la stabilité des valeurs traditionnelles. L'homme qui, de par sa nature, a tendance à s'orienter vers la spiritualité, ne connaît plus aujourd'hui le monde éternel. En quête de l'aisance, il oublie ses autres aspirations et passe son temps à accumuler des richesses matérielles. Dans ces conditions, comment peut-on adhérer au bonheur l'histoire nous déborde de tout pas de l'homme du droit chemin, tracé d'après le message de Dieu, si nous n'avons au salam, par le Coran, l'entraîne automatiquement vers les barbaries et les sauvageries indignes même des animaux. Que faire Qui suivre Quel avenir attend l'homme et l'arrêt du 20 qui joue à l'apprenti sorcier. Par toutes ces incertitudes, les penseurs musulmans tels que les soufis apportent des réponses rassurantes enracinées dans la riche culture islamique. Donc le soufisme est le refuge si pur pour que le musulman échappe aux mauvaises choses éliminaires. Notre cher prophète Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut armé de patience une d'une persévérance sans égale. Il arrive parfois des moments où il fut submergé de peine, de chagrin causé par la sottise et le caractère obscur de ses concitoyens. Or, ils sont isolés en se réfugiant dans la solitude. Cette solitude l'amena à la caverne car D'où l'ange Jibril le saisit en lui disant Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé. C'est le délit de la révélation. C'est le moment qu'il passait à cette caverne pour méditer et le chemin qui mène au suffisant. C'est dans ce moment propice que surgit dans l'ombre une petite fille du prophète Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, Sherifa Aïcha Aïdara, découvert par un nommé Baïfal qui n'a ménagé aucun effort pour créer cette association nommée Diwan Sidina Mohamed Sallallahu C'est pour cela que Diwan Sidina Mohamed Sallallahu à travers son président culturel, Cheikh Nyausa, qui a choisi comme thème الصراع بين الحق والباطل le tiraillement entre la vérité et le mensonge kon mbokk yi ginnaaw ba ñu leen ba ñu santee yàlla julli ci yonent bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi la ñuy tënk rek ci wolof mooy xam ne sunu maam yi sunu bàyyi dañoo bàyyee diine lislaam transfert ñu ko ba mu jub diine jooju ñu nekk rek di ci dox ak di ci wax dañuy dem ba yàgg am ñoo xam ne dañu ciy rax baa dañuy rax seen bopp ay yàlla yu ndaw maanaam ñoo xam ne du ñu dara ñooy mën lépp loolu nag bu ñu demee rek day daal di dugg. domaine du shirk shirk boobu nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la fekkoon biir Màkka ba taxoon ca Kaaba ga mu fekkoon fa lu mel ni téeméeri yàlla ak fukk ak ñett boobu ñëw ñoom yëpp mu damm leen sànni leen taxawal diine lislaam kon tey jii bi ñu demee ba jaxasoo boobu am yàlla dimbale ñu ba ci gox bii di Kër Massar am jëmu ji ci feeñ di sëtu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jigéen muy soxna Aïcha dara waaye ci ndimbalu borom këram di Cheikh Omar Thiam yàlla def am ku ko gis wan ko Baye Fall Ndiir muy soxna Khady Baaxum Baye Fall gis ko ne sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënta nekk Kër Machar kenn di ko umpale ci la wootee ñam woo ñëpp ñëw daje ci la ñu formé diwaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa lii ci tënk mooy war diwaan waaye diwaan googu nag ci lëndëm la feeñe lëndëm googu mooy yàqu-yàqu jamono yooyu moo tax tey jii diwaan ci conférence bii nga xam ne moom la yëkkati def ko conférence départementale mu ne nag thème bi nga xam ne moom lañuy ñuy tànn ñu dégg ko ki nga xam ne mooy commission culturelle Cheikh Ndiaw Sarr mu ànd ak Cheikh Abdoulaye Ndiéguène bi nga xam ne mooy adjoint ñu tànn thème bii nga xam ne mooy liy tàqale diggante dëgg ak neen loolu mooy thème bi tey moom la Cheikh Abdoulaye war a traité ci tënk lii mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon nañu ko laamine mbokk yi fàttali ñu suñu bopp waaye ñi leen gën a baaxul ne ay sëtu yonent lañu toogal fii sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xam ne tey kuy woote ci réew mi ci wàllu diine lislaam ci ñoom ngay jaare woote ko kuy woote ci diine lislaam ñoom ngay jiitaroo tey jii yàlla def ñun ñu am leen ñu nekk ci suñu wet man sax maa ngi jéggulu yàlla sama borom di leen jéggulu toog bii ma toog ci seen wet di toogaayu kaw waaye luñ ma forcé la waaye comme du ko def ci laay toog di comme du ma toog a ñoom waaye nag ah comme dañ ma ko obligé faaw ma def ko rek kon daal ñii la ñu am di leen tiitaroo kon nañu delluwaat àndaat ak yar àndaat ak teggin déglu ki nga xam ne mooy conférencier bi bu noppee ci li muy def ñu jox ki di fay ñu waxtaan yee ñu tàggat ñu wëlbati ku ñaanal ñu ngir yàlla faj sunu aajo ndax toll nañ jamono boo xam ne soxla nañu ñaan ndax li ñu soxla ci réew mi yëpp mooy jàmm jàmm jooju nag moom la ñuy wut tey te yaakaar naa thème bii bu ko imaam traité dina wane na jàmm fii la nekk dina wane ne nii mooy tax am jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sallallahu alaihi wasallam للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفضل ذي الجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير الطعال وأشهد أن سيدنا وحده tabarakallah waaye fii jël lépp dokk nag Cheikh bu Jaxata fa tabarakallah waaye suñu yaay ba jigéen Seyda ah, ah, tabarakallah may nag taal nuyul ñu jigéen ñëpp waaye nag sama soppee gi la rek sama kilifa jox ma digal nag Cheikh Jaw Sarr fa tabarakallah si terme beeg yëpp rek yàlla yàlla taxaw kay yàggal di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal nag Sayida Aïcha Ubaydala yàlla yàlla fëgg boppam delloo si si kanam mbooloo mi di jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam saa jur kañ fa tabarakallah nuyu naa la saa tur la macha allah boo toppee rek tabarakallah tabarakallah Sayida ñoom ñëpp nuyu na leen su ko defee nag tabarakallah ñu ngi jëm si comme ni ko président waxee ndax nag dañ ñoo yónni yàkkamti ñu moo tax rek ñu daal di koy doxalee noonu li ñu yónni nag mooy assaraa bayna al xaqi wal baatil mooy tiraillement entre la vérité et le mensonge may wax ne nag boo déggee tiraillement du yàllaa xëccoo yàlla ku mat la nopp la waaye léeg-léeg Chérif da ngay dégg oustaz yàlla di wax naxnu wala muy wax ana nu di jël gaa yooyu tëdd yi yu baax yi fa tabarakallaahu dugal ko si état pour nag màggal mooy si diggante gaayam daa defar bala muy defar sotti ba pare ñu nar koo yàq mu ni bi fi amee kooku yërmande la boo xam ni moom la yërëm jaam ñi rawatina xeetu yëpp yàlla moom defar ba bu baax wallaay bu ko neexoon toogee mel seetaan waaye mënta seetaan ndax yërëm gi mu yërëm jaam ñi ñu ñëpp kon yàlla dafay artu yàlla day artu yàlla tabarakallaahu dafay lan moo ko si ñi muy daloo si mooy lan naafeq naafeq dañ koy daloo si Moussa Bala Dia wax na ko démb ki ñuy daloo si naafeq lay nekk moo tax yéen yàlla wax na leen sallallahu alayhi wa sallam xam loo ko ñëpp kon kooku mooy jalla jalaaluhu wa kamal ngay dem dañ ma te di wax wa rabbuka lil malaikati inni ardi déggal waay okkal bu toll yam dafa xëy bés rek woo ay muy malaayka yi fas yéene waxtaan ak ñoom dama ni dangay dégg si Cheikh Baye Fall muy laa fi daaw buñ koy fàttali bu bare lu tax ci gaa tax waaye alquran bu nu koy fàttali bu ren ba déwén ba nii ilaa yomina haada njariñ la sa nekk tax moo tax nag laax njariñ la fokk tamit tabarakallah donte sax dafa am fu ñu bëgg a dem waaye dañ jariñoo ndax yàlla damay wax ni su ko neexoon doxee sañ-sañam ndax bu am sañ-sañ rek si mbuuram waaye bu xëy rek woote lam si jànge mooy lan nit da waxtaan ak si njaboot day waxtaan ak njabootam ndax gars yi soo dee kaymaale te faraajam damay junj nag waaye la sa des allah su ñu ba sa doom waxtaan la daanaka xam la ma doon wax. shérif bu xalifa Kunta waaye nuyu tamit bu shérif ay dara nuyu shérif Abdou Khadr Aydara nuyu suñu pap shérif cheikh bu jànqa waaye nuyu nag kilifa yi fi nekk yëpp monsieur euh, euh, monsieur li ñu ngi lay nuyu bu baax nuyu kilifa yi yëpp honorable ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu waa diiwaan bi yépp di leen di sant di leen di si bés bu ama am solo bii nga xamante ne moom ngeen organiser si weer bu tedd bi di weeru koor muy luy dundal suñu di diine islam moo tax bañ ma ba wa diwan diiwaan manilen ma ni leen am jàppoon naa yoon waaye wax dëgg yàlla euh, jaral ngeen ma ma sama yoon ba yefi yi paase ma soog voyager di kontaan bu baax ci organisation bi di ko rafetlu it di ñaan yalla lepp luñ fi wax rek yalla na doon yiw degg na fi euh oustaz kàdduwam yi mu doon wax muy lo xamantene ne njëriñ rek la ndax tay jamono dafa teureudi lélé soxlay soxla yi mën naa euh, nit ñi ba nga xamantene euh mën nañoo lélé léeg euh, sore tuuti yalla waaye waxtaan yu mel nii day tax ku ci nekk rek ku sa xel nekkoon feneen it nga dellu siwaat ci yàlla kon yàlla na waxtaan yi toujours rek di tas fépp ba nit ñi toujours di ci di ci jot ndax toujours da delloo si si si sa diine islaam euh, di kontaan bu baax nag ci li ngeen ko organiser fii ci Kër masaar bi nga xamante ne moom mooy suñu suñu commune suñu département it euh, di rafetlu kilifa yi fi nekk yépp nag parce que wane nañ ni diine la diine nag boo ci wootee Euh, nekk na loo xamante ne ñëpp a ci xaj kon dafay am solo te dafay tax ñëpp xam ne li gën a am solo mooy li ñu boole li ñu boole moo gën a bari li nga xamante ne moo ñu tàkkale xanaa di sàkku ci jotaay bi rek ñaan pour Sénégal ndax nag Sénégal lu ñuy bàkkee mooy jàmm kon jàmm googu yàlla na fi sax ba faw ndax loolu lañ ñu xamee mbiti mu réew looloo tax ñu nawloo ñu mbiti mu réew kon loolu yàlla bu fi musa deñ euh, ñaan rek xol ñu gën koo yaatal waaye ñaan yàlla indi tawfeex bu baree baree bare fii ci Kër masaar gi ñu nekk nekk fii aussi ci Sénégal euh, honorable dañ lay sant bu baax nag ndax mënoon ngaa jël kàddu en tant que marraine waaye bëggoon a sakkanal temps bi rek waaye tamit jox cër rek moo tax nga nangu ma yóbbaale sa kàddu bi ñu ngi lay sant bu baax a baax di kontaan ci sa teewaay bi fii di la ñaanal aussi ay ndam-ndam foofu nga xamante ne fa ngay yëngu Euh, kàddu gi moom mënuma kaa guddal dama leen di santaat di leen di gërëm di nuyu waa nité aussi ñu ngi leen di félicité gis nañ ni vraiment ñu ngi gën a yaatal mbir mi yal na yàlla teg loxo ba muy gën a yaatu rek ndax lépp rek njëriñ la te waa Kër masaar ñoo ci bénéficié wu Sénégal jot ci asalaamualeykum wa rahmatullah. waaleykum jigéenu merci di nuyu mboole mi jigéenu diwaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi nga xamante ne ñoom ñoo organisé tey conférence bi ñun suñu kàddu du du gudd ndax euh, conférence bi temps dafa xaw a xat te ñun suñu bopp ñu ngi xaar encore ci yeneen i conférence mais fii madame le ministre daanelee rek man foofu lay euh, yëkkatiwee sama kàddu ni que Sénégal réewu jàmm la jàmm lañ ko xamee Euh, ñu ngi sàkku donc ci conférence bi euh, ñu ñaan jàmm gën a sax ci réew mi euh, particulièrement dafa am ñaar ñoo xamante ne ñoo ko yor muy suñu yaay yi jigéen ñi mais également ndaw ñi ngeen gisee xew-xew yu xaw a am fan yi jàll ndaw ñi bëri nañ ci bëri na luñ leen ci gis donc jàpp naa ni même bu fekkee ne amaana seen teewaay yi bëriwul tey dina baax ndem vidéo yi dafay dem Euh, ñi ñaaxaale leen gën leen fàttali yàlla ci barke weeru tedd bi ñu nekk nii nit ñi delloo ci seen xel xam ne li ñuy def yëpp bu fekkente ni jàmm amul dara mënu ci am donc lu ñuy fexe yitteel yittewoo tamit jàmm ji donc vraiment imam ñu ngi leen di ñaan euh, ci biir seen waxtaan ngeen euh, gën ñoo ñaaxaat bu baax a baax a baax ci kàddu yu jàmm di ñaanal Kër Massar itam yàlla teg ci loxo ndax département bu bees Euh, jafe-jafe yi bëri na enjeux yi bëri na mais gëm nañu ni incha allahu taala bu ñu laxasoo doon benn waxuma ñu xaar ay autorité askanu Kër Massar moom laay wax ñu ànd doon benn di xalaatandoo di xàccandoo di dóorandoo yéenante jàmm ala kulli xaal incha allahu taala jàmm moom mooy am te bu boobaa bu ñu commencé parce que ndimbal dafay fekk ci loxol borom ñun bu ñu commencé wee rek waree suñu bopp suñu pas-pas ak suñu yitte pour defar Kër Massar képp ku mënti toog dinañu gunge ci loolu donc nañu ñaaxaale nit ñi ci raxas xol yi yaatal xol yi fépp peu importe fu ñu mën di bokk ci parti politique yi ñu xam ne d' abord li ñu jiital ak li ñu war a yittewoo d' abord mooy Kër Massar donc nañu fexe boole xol yi ñu ànd doon benn def Kër Massar suñu yëf liggéey pour jëmale kanam Kër Massar képp ku ñëw fekk si ñu si ñu ànd joxante moom loxo ci liggéey jërë ngeen jëf merci beaucoup. ànd ak teg ak dal te seetam toog ci jotaay ànd ak teg ak dal yaa ngay nax sa bopp de. kii di wax nag sëtu yeneen bi la sallallahu alayhi wa may dalee sama nuyoo imam Ndiéguène ci yow dalee nuyoo bi xam nga lu tax bi ñu annoncé thème bi ma ñëw toog bunt bi ma ko xalaatee yàlla mooy seede wallahi lazim fa nga jaar ah wa iz qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xalifa fa la coow lu commencé ba nga ni entre dëgg ak neen atajaalu fii amal yu sëri fii awa siko dima wa nax nu nu sabbi ko bi xam ne ko nu xaddi soo la yal na yàlla fay la na nuyu baax sëri maa ngi nuyu na nuyu bu baax yaa bégte ci yow biñ la fekkee ci sa kër ci sa ëtt ci sa njaboot nga def li nga def waaye moom moo mën a def ku ñu am surtout yontu bi alayhi salaam teraange ci yonent bi la fekk baax moo tax Cheikh Muxtaar guddi ci salawaatam yi bokk na ci la mu wax allahuma salli ala sayidina muhammad alladi waqafa almajdu inda baabihi kal abid wala tàgg yëpp ak xéewal ci nga xam ni tedd nga ak teraanga ak jub dañoo daw ñëw jonka ci buntu néegam di ko xaar mel ni jàmm ne muy xaare sanga kooku mooy sangu-sangu yi kon buy seetoon toog ba fekk macha allah ñu nuyu bu di nuyu Cheikh bu jàmm président bi xam ne yàlla moo ko baaxee waaye jaar na ci sama làmmiñ mu bokk ci mbootaay gi ci xalifa bi yebal bu ma yebal ma am ngan woo ko wax waaye boobu li yàlla na kon noo ngi lay nuyu di nuyu ñi nga ànd ak yëpp ci diiwaan di am mbégte ci Baye Ba biñ la tuddee ñëpp a tàccu te sa kanam da koo wane donc day sargal bu baax di la nuyu di la gën a soññ ci liggéey bi ku liggéey rek yàlla fay la ñoo ngi nuyu soxna yi di leen jéggalu nag ndax ñu ne dañoo am yeneen yitte te xam naa ni toogaay baa ngi xaw a yàlla ko defee dañuy daaneel foofu kàddu gi rek di nuyoo di ziar di ñaan yàlla diwaan bi yàlla na ci yàlla teg loxo yàlla na yàlla yëkkati ba lu ngeen yee woote rek. ñëpp fekke ko tey jii li jaar ci ay personnalité ay nit ñu am wane na ni yéen ñi wax dëgg yàlla fi ngeen teg seen tànk foofu la. ñaanal la saraka ji bu baax. ñaanal la saraka ji bu baax. wallaay Cheikh Abdou Khadir Jeylani ñoo ngi lay ñaanal bu baax a baax mbooloo mi nga jiite daal yàlla téyel la ko loo ci namm rek yàlla war na dugal ko ñoom bi jaay rasul asalaamaaleykum.